allahu sool fadlil azim kum jox ngeneel de filayem fadilu mooy fadlul xamim turum wa doy na xarnu bi mooy doomi samsun wa xamar mbàkke bu soobee duñ ko jar moo namp yaari meeni ngor mooy bamba ci xarnu bi sëddiiti baayam lay royaat leeruk cosaan ga day royaat nday jaadi xayru musinaat moo doon mbooti xarnu bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi fii ci kër sëriñ Fallilou Mbacké ginnaaw bu nu jotee ndigal ci xalifa général de Mouride sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké mu wàcc ci sëriñ Abo Mbacké mi nga xam ne moo di xalifa sëriñ Fallilou Mbacké ñu jot ndigal ci ki nga xam ne nag moo di kilifa ki nga xam ne mooy woote bis bi mu di sëriñ Waseynu Mbàkke sëriñ Ateex Mbàkke ibnu Seex du faadal ñu fas yéene woote bis bi nga xam ne naka jekk daanan ko woote ci waxtu wii di ko woote ci wa ci heure bi ñu dellu si nag di ko woote waat mu war a dolloog fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi le 13 janvier 2019 ñu di ko amale ca Dakar ca Parcelles sëriñ Waseynu Mbàkke jot ndigal ci kilifaam yu baax yooyu fas yéene koo woote yéen ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñoo leen nuyu yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di leen yëgal grande journée Magal de la mec de Serigne Fallou Mbacké war a amee fële ca Parcelles Assainies unité 17 le 13 janvier 2019 ñoo ngi ciy woo mbokki jullit yëpp mbokki jullit yëpp na mbokk talibé yi ak waa bitim réew diaspora bi bàyyiwuñ kenn Serigne Serigne Mbacké ànd koog euh, daaira wal baldu tayibu ak waa kuréel ànd liggéey Serigne Fallou Mbacké kon képp kuy julli rek rawatina képp kuy taalibe rawatina képp kuy soppe Serigne Fallou ñoo ngi lay woo ci bis boobu war a tombeeg fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2019 ca Parcelles Assainies ca buntu mairie ba ñoo ngi ci woo ñëpp bàyyiwun bàyyiwun kenn di leen nuyu ci turu suñ kilifa Serigne Omar Bousso xalifatu Serigne Mbacke Bousso mu waxoon nañ teew ci bis bi ànd ak sëriñ Ousseynou ci woote bu sell bi muy woote jëmee ko ci maamam ju tedd jooju muy Cheikh Mahamadul Fadil di sant sëriñ Touba ci xéewal gi mu ñu xéewali Cheikh Mamadou Fadil ak àggale gi mu àggale woon ndigalul Serigne Touba muy joxe ji faratay ak Makka te àndoon koog jàmbaar yu mag yooye muy alxaaji sëriñ Mbacké Bousso ak maam seex Anta Serigne Omar wax ne loolu am na ci te lool sant na ci lool it nee na mi ngi ciy woo mbooleem koo xam ne eh, dangaa sotoo ci Serigne Bousso bi mbooleem koo xam ne dangaa sotoo ci Serigne Mbacké Bousso eh, di doom ci moom wala ngay sët ci moom nee na mi ngi la ciy woo. di ci woo mboolem taalibi yi aju ci sëriñ bu Bousso ak mboolem waa kër sëriñ Touba sëriñ bi nee na mi ngi woo ñëpp rawatina taalibi yi nga xam ne ñoo féete ndakaaru nag nee na mboolem ku fay jëwriñ ci kër sëriñ Mbàkke Bousso rek mi ngi lay yëgal bis nga ànd ko sëriñ Xuseynu ba mu àgg te na mu ko bëggee mboolem njaboot gi tam mi leen ko yëgal leen ci woo ñëpp nee na mi ngi koy yëgal sëriñ Abo Sall mi nga xam ne kenn ku ne xam ne ni mu doon ci kër sëriñ Mbàkke Bousso doon fa jëwriñ féete ndakaaru sëriñ bi nee na mi ngi koy wax yëgal bëgg mu jàpp ci ni mu daan jàppe ci bis yi jiitu woon dañ daan tudde sëriñ Mbàkke Buso sëriñ Ousseynou daal kaddu yi gën a woote rek kaddu yu cant la ak woote yoo xam ne sëriñ bi daf noon nañ ko yëkkati ci bis bi di ñaan ñu àgg ci ak jàmm te dugge ci ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin wa axiru naa an alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Sërif Ousseynou Mbàkke moom sëriñ Ateex moom sëriñ Fàllilu mi nga xam ne mooy responsable moral bu daayira wal du tayibu di njiital kuréelu ànd liggéeyal sëriñ Fallou ak mboolem ñi mu àndal. ginnaaw bi mu jotee ndigal ci xalifatul am li taifatil muridiya a Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na ko fi sunu borom yàggal te wéral ko ak ci ndigalal Serigne Abul Baraka mi nga xam ne mooy xalifa ab Cheikh ci ndigal ak sëriñ waajuram Serigne moom Serigne Fallilou ci kilifteefu Serigne Abbas Mbacké xalifa maam Thierno Ibra Faati borom Daaru Moxti

moo tax li ëpp ci mébét yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul amoon na ko suñu boroom jaarale ko ci Serigne Fallou mu mottali ko. juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn ginnaaw bi Cheikh Ahmadou Fadil ñibbisee mu mel ne daf koo dencaloon kenn ci ak njabootam di ab sëtam muy Serigne Ousseynou Mbacké moom Serigne Atteex moom Serigne Fallilu mu ñëw woote bis boobu ci ndigalal ay kilifaam ngir bëgg ñëpp jariñu ci ñëpp am ci tuyaaba ji ren. di fukkeel yoon bi ak juróom maanaam quinzième édition bi mu dara jaale ko itam Serigne Mbacke Bousso ndax kenn la ci ñi nga xam ne bokkoon na ci ñi Serigne Fallou àndaloon ci yoon woowu yi Serigne Mbacke Bousso moom mii la Serigne Ousseynou dara jaale bis bi. Serigne Ousseynou itam di ko yëgal njabootu Serigne Touba gépp li ko dale ci kër Cheikh Amadou Moustapha ba ci kër Cheikh Amadou Moutada dale ko ci kër Soxna Fatou Mbacke ba ci kër Soxna Maymunat as Suxra di ko bokki bopam yi nga xamne ñom la bokal seigne Fallu di ko yëgal cheikh yoonu mouride yep di ko yëgal itam këri diine yi nga xamne ñi ngi ci rew mi di ko wa diaspora bi ndax ñom bis bi seen bis la ndax seigne Sëriñ Ousseynou bu amale bis bi fi ci rew mi lum ci rek dana dem fofu ci bitim rew Europe melni Espagne Italie France Allemagne ngir and fa ak ñom liggey bi gën ko yaatal bu baaxa baax ah, di ko ay way juróom yoo yag ne yàgg ak ñom bis bi ku mel ne Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir Serigne Abdou Samane Mbacke moom Serigne Souhaïbou Serigne Baara moom Serigne Souhaïbou ak ay bàjjanam yoo xam ne itam yàgg nañ koo fekk si ci bis bi ku mel ne soxna maam Faati Mbacke uh, Isine benn tali ak soxna maam Faati Mbacke xar yàlla monsieur le maire Moussa Sy bis bi bisam la ndax mooy dalal Serigne Ousseynou ak mbooleem ñi mu àndal am na ci ay taxawaay yu rafet yoo xam ne uh, daf ko ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp. taxaw ci taxawaayu rafet di jaar ci moom itam di ko yëgal euh, président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall ak euh, premier ministre am Mohamed Boun Abdallah Dionne ak mbooleem gouvernement bi. di ko yëgal itam waa opposition bi ndax Serigne Ousseynou dafa tëdd njaaxanaay ñëpp ay soppeem lañu ñëpp ay xaritam lañu ñëpp ay wëllëreem lañu kon ku nekk ci ñoom wàccuwaay wi nga am ci moom mi ngi jaaree ci wàccuwaay boobu di la fàttali bis bi te di la ko yëgal. ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu sunu kilifa. di soññee bis bi nga xamante ni sunu mbokkub taalibe mi di sëriñ Ousseynou moo koy taxawalal sëriñ Falilou ca Ndakaaru te di ko ànd ak bokk yëpp ñu koy yëgal mbokk yi nga xamante ni lañu bokkal ci sëriñ bi ci wet yëpp nag ngir ñu ñëw ci bis bi nga xamante ni bisu pajug ajo la ndax ki fi jóge woon dem am lu mu doxi te yàlla digle ko mu doxi ko mu mat sëkk ca fam ko doxe dellusi si indaale yiwu réyam wa mu indaale woon waxtu woowu bu ñu tolloo ci di ko fàttaliku ngir li ci sàkk yiw bu jóge ci sunu borom jaar ci Cheikh Amadou faadal mu àndoon ko mbokkam mu baax ma Serigne Mbacke Bousso ak li yàlla doxale ci mbokk gi ci diggante bi lépp di aw yiw kon ñu ngi woo képp koo xamante ni kii ku bëgg paju ajo nga nga xam ne bis bi pajug ajo xaj na ci yal nañ ko ci yàlla mottali ba ñu àgg ci bis ba ci jàmm ba lépp loo xamante ni lu ci waaye yéene la fas ko ci yéene taxawee wala yittewoo ko ci sa yittey bopp yan na ko ci yàlla def saafara ci barke Cheikh Amadou Fadal di ñaan yàlla Serigne Ousseynou yal na nga yàgg a taxaw bis bi ci turu bokk yi fi teew yëpp. yalla defal la ci ndam lu kawé sa ndort nga am ci sa ngeureumal mam te yalla yagal fi sa wayjur serigne atex doli ak wéram te yagal ko ci sunu kanam ci barke Cheikh Amadou Fadal jërëjëf. maa ngi lancé appel di wo sama mbokku jigéen ñep ci journée grande journée retour à la Mecque de Serigne Fallou ñu koy amal le 13 janvier ci esplanade bu parcel Assainies ma ci wo sama mbokku soxna yëpp wa Sénégal diaspora bi bayuma kenn. di ci woo waa Parcelles yëpp waa Pikine yëpp waa Touba waa Thiaroye waa Boune fépp foo xamante ni Serigne Ousseynou Mbacké am na fa wóolare maa ngi la ciy woo ci journée boobu di leen wax ne ku ñu ñëw en mars parce que journée retour à la bi ñu ngi ko déjee à Serigne Mbacké Bousso mi nga xam ne moo àndoon ak Serigne Fallou dem ca aj màkk ga ñu ngi ciy woo mbokk soxna yëpp di ci woo mbokk taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah